거의 kon déglu déglu islam Sénégal ñu baax ñu gën xeex yëpp ñu doon islam dañu kanam kenn ku nekk rek bu baax loolu la ñëw yaa ko am kon tey Sénégal yëpp ñoo génn yëpp daan jërëjëf Baye jërëjëf Baye Ibrahima Niass Sénégal si dina def wallaay ca waaw lii moom jagatu ko nag waaw wallaay lii moom dañoo wàcc dem toog kii ji ko. dañuy taxaw mu ngi ñëw. ah loolu moom waaw maa ngi ci kanam kay. waaw mais moom naka taxaw. si Sow moo war a taxaw. waaw moo taxaw xaw ko. allo kooku kenn bu bees bi dama media media bi kese ñoo ko yëg media bi kese ñoo ko yëg wallaay ndeysaan Cheikh Tidiane Khalifa baa ngi waaj a génn Cheikh Tidiane Khalifa baa ngi waaj a génn ñu ngi nii génn ay waaw ah, ñu ngi nii mbokk yi ñu ngi nii ba léegi en direct aéroport Léopold Sédar Senghor xale bi daanaka volom bi atterrir na depuis 13 heures ñu ngi nii convoi bi daanaka mbooloo bu mbooloo bu takkoo takku moo xam naa moo xaw a retard tuuti convoi bi convoi xale bi génn na aéroport bi. kenn yaa dama mel ne xale ngi waaj a ñëw di jege borom mataar borom moto yi borom jakarta yi étudiant ñoom ñëpp ñu ngi nii di waajal ànd ak xale yi parce que ñu dem Medina Mawlana Cheikh Ibrahim bi ci passerelle bu nekk xamee ni la Baye Niass doon wax rek ne yéeg na ci bi ba ci bi yéeg ci jaww ji yéeg ci avion waaw rond-point bi nag xamante ne loolu matériel la ci jaar dëgg la waaw dafa mel ni adduna bi yëpp ñoo ko nga taxaw baal ma ñoo ko ci Baye Info dafa mel ni adduna bi yëpp nañu seetaan Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima ci Baye Info ñoom ñëpp dafa mel ni waa Ndakaaru yëpp a génn nañ SR Diop yëpp a génn nañ taalibe yi fu waay Sénégal ñëw nga oh, oh. no no no no partagez lien bi ah dama soxla beneen bés lii yéeme na lii yéeme na naaj bu tàng bi ñoom ñëpp ñu taxaw di teeru booba bi ñuy génn Mouhamadou Nal Ibrahima booba bi ñuy génn ñu génn aéroport lépp taxaw ko booba bi génn na ñu ngi avancé Đưa lên một cốc lên. Đưa lên. Đưa lên.

réew lañ bëgg réew lañ bëgg wala

lii war na leen a yeewaat. te ñii bu mu avancé ñu ngi dara. Sénégalais warul rey nit. Sénégalais warul rey nit. Sénégalais warul jekk moromu jullitam dañ koy jam. waaw booba tey ñu ngi ñu ngi récolté seen mbir. waaw tamit ñu jégal ñu ñu nit ñu xaw a kii waaw. Eh, Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Sénégalais. lii daw na yaram bu ñu gisee sax sax ci daan ab ab ab ab waaw képp ku Sénégal rek ñu la bëgg liệt đâu nó maa ngi gis Wilane maa ngi gis Wilane maa ngi gis Wilane maa ngi gis Wilane ndeysaan Wilane nga dama ne bu ne seexal islam bu ne islam rek seexal islam Baye Niass buñ ko waxee rek dëgg la ndax lii moo ko wane lii moo ko jàngale aéroport bu Léopold Sédar Senghor la la la Maolana Cheikh Ibrahim daan daan jëlee vol di dem ndeysaan booba caméra yi bëreegul nii téléphone portable yi bëreegul nii waaye tey doomam ju tedd ji doomam ju màgg ja di Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass wane loolu Maolana Cheikh Ibrahima Niass doon def. waaw ah, tey jërëjëf yow lañ bëgg Cheikh Mahi jërëjëf. jërëjëf Cheikh Mahi. Cheikh Tidiane damay wax ne Cheikh Mahi li mu def dafa rëy. dafa rëy dafa rëy. jar naa doo ba dee. Cheikh Tidiane loolu jar naa daw ba dee bi moom ñu romb noonu. ñu romb noonu. moo ngi nii. mu ngi nii de. Aliou Ba baa ngi nekk oto bee ñu yeesu. eh saa yu média bi la waay média moo jiitu. waa eh. Waka sax am ah. na ñuy gëm. Waka sax dañuy gëm. Waka sax dañuy gëm. kontaan nañ ñu. jërëjëf kontaan nañ. xale bi léegi jiitu nañu moom suñu kanam. xale bi jiitu nañu moom suñu kanam. waaw waaw attaqué nañ ko. attaqué nañ ñëpp génn nañu. ñëpp ñu sant yàlla bu baax. சரி பாத்துக்கிட்டோடு தெக்கிலடு Lên đàn như lên được rồi, lên đi đẹp được thao đàn như bây giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn wala leen ci ginnaaw dëkk baa ngoogu xale bi jiitu nañu xale bi ñu ci kanam gendarme ñu ñoo ko cortésé jiitu ko ci kanam bi yëpp a ngi ci kanam embouteillage oto dematul oto ñëwatul yéen a ngi koy am en direct fii ci Dakar fii ci Barhamiennes TV téléspectateurs yi mbaa kontaan ngeen commenté leen kontaan nañ Saya taruh di yung. Dit, dit, direct dibangin ya, dek. Mangi cai sesai kan. Wow, ni non di jaga wat populasi bi. Yang non di jaga wat populasi ni sisi rompo yo. Yang di jaga populasi ni yo. Minal ñoo ngi fii nii ci rond point Yoff ñoo ngi fii ci rond point Yoff Dakar fii di quitté na aéroport bu Yoff ñoo ngi tolloog fii nii ci rond point Yoff Dakar xale bi mi ngi toll ba tolloog rond point Yoff Dakar xale bi mi ngi tolloog rond-point yóbbu Dakar pour may seetaan téléspectateur yi oto defatul oto bi rond-point bi nag Dakar Kaolack la ma nga jëm ba Kaolack ma nga jëm ba Kaolack waaye mi ngi tolloog Yoff ci rond-point Yoff bi jërë ngeen jëf téléspectateur yi <laughs> non tey moom xaal bee ma tëbu rek tey moom xaal bee may wax loo rek barke Baay Ñas kenn am fi Power Bank instant yii ñu ngi tolloo loo koy yow oto demul oto dikkul yéen a ngi commentaire jërëjëf Barhadane TV waaye jërëjëf Maolana Cheikh Ibrahima Niass téléspectateurs yi kontaan nañ ci yéen gis nañ commentaire yi gis nañ j'aime yi gis nañ partage yi jërë ngeen jëf. maa ñoo wakne wax ne rond-point Yoff lañ tolloon oto dematul oto dikkatul oto dematul oto dikkatul fii ci rond-point Yoff waaye yéen a ngi koy am en direct fii ci Barhamiennes TV vision de la paix Ay, waay. Ay, guys, kenn ci wala may suivre sa man kita sa kita sa di solo sama kabu sama dah kena video dia yang kenapa boleh di dalam am Sénégal am na ndam diine l'islam am na ndam faydatu tijaaniya am na ndam taalibe Maolana Cheikh Ibrahima am nañ ndam Barhamiennes TV mi leen koy jox am na ndam